mu jëmal Ziguinchor waxtaanee ko donc ñu dem seen élément yi ñëwaat ci bi. ay ca ñu dem macha allah. jàmm seen beneen numéro seen rubrique à de découverte du Sénégal fi ma taxaw nii miin ngeen ko xam ngeen ko ñu ngi fii ci diwaanu ci Ziguinchor wala sax bu neexee nga ne Casa di Massa Ziguinchor te lañ leen fas yéene xamle daana xam ngeen ko sax mais danañ jéem suñu kéemtalaay kattan wal leen li nga xamante ni moo fi nekk. ak secteur d'activité yi ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni amaana mu fi te yéen ñi nga xamante yéen a diwaanu. première bon deuxième bi bon entre Joola ak Mandé Joola dégg nañu fii Mandé dégg nañu fii moom du ba li ñëw fi jiit activité yu bëri ñu fi nekk ci ci dëkk bi surtout bu kat yu si l'islam ak politique bi ma fekk fii. yaa affaire euh, El Hadj Afar Bakary Camara. moo nekkoon fii imam ratif si ñu ñu boole ak si euh, Boubacar Xaydara ñoo bokkoon duma bali am beneen jërëjëf takk bu dëkkoon fii ñu Samba Samba Cissé après Samba Cissé c'est Afar Bakary Camara laa fekk fii mag yi après euh, ñu kilifa mi nekkoon fii Sidi Mandiang kiram mu ngi fii ak almaami Sagna Grand Dakar ak almaami Demba Kéba Konté ñooñu laa fekkoon ci temps mais activité yu bëri mujj bi presque man ni ñoo musulman commencé ñu bëri ñu nekk catholique ñu nekk yeneen xeet yi ñu yeneen yi ñu commencé ndanga ndanga ñu tuub boo commencé en soixante ba dee ba en quatre-vingt fi amuloon problème fu la ne bu guddi mun amul dara xeeti yëpp benn la amul lii lii soose la ñuy melante la ñuy fol la ñuy njaagu la parce que dëkk bi la dëkk boo xam ne dafa bari xeet donc boo commencé Bayninke ak Joola ak Mandé Mankañ Njaago yëpp mi ngi fi. na dem na ba 14 eh, xeet mi ngi fi moo tax mais ñu bëri kenn xaaju la moo tax moom da nga gis si kër eh, mën na ñu àndaa Joolaay ñetti kër Manjak ñu àndaa eh, Mankaañi te la plupart Mankaañi ak Joola ah, Mankaañi ak boo ko mën a séparé bu baax bu ñun fii la ñu yàggee di jaay yàgg nañu fii torop torop fii la ñuy dundee fii la ñuy fay suñu doom yeekoor ñuy góorgóor si ñoom ñi leen ñi ne nañ ñu jàppare ngir yàlla ñu toog ndax ñu mën a dundal si njaboot yi ndax fii la ñuy fee si njaboot yi école fii la ñuy fee luwas dëgg la dañ ñuy fay pour ñu joge fii waaw te bu taw bi bu taw bu baax daf ñuy so daf ñuy sonal boo taxawee si kaw ndox boo ñibbee sa tànk bi day nuyu. sal ñun ay taxi moto jakarta la ñun man maay président garage rond point si maan yi muy zone noire yi ñoom daal ñooñu mayul jàmm ci tali bi waaye boo jëmee boole escale bi moom wax dëgg si yàlla tali yi moom wax dëgg si yàlla am na problème foofu nag am na problème waaw escale bi nii waaw waaw am na problème waaw wax dëgg si yàlla waaw waaw ak boor yi boor yi Lindiane bi nii ci biir boo duggee Lindiane tamit ci biir tali foofu am na problème trop am na problème trop ndax surtout bu dee fii bu fekkee nawet bi la nii taxi moom daf fi métti trop ndax am na zone yoo koo ne Jakarta du port bi moom bato bi bu ñëwee moom bato bu ñëwee surtout buy dem moom dañuy jaay bu baax waaye depuis mu arrêté woon affaire corona bi sonnoon nañu fi torop torop waaye léegi moom ñuy sant yàlla bu baax waaw ñu ngi jaay nag ñu ngi sant yàlla sonn nañu trop pour jaay mi franc sax liggéey la dangay ngay toog depuis suba ba ngoon pour nga jaay sa téeméer sa problème la waaye léegi moom ñuy sant yàlla bu baax a baax ku wàcc ci bato bi rek sax ñuy jógee ñu ñëw mission nii bu ñuy ñibbi rek ñu ñëw gaar gaari jënd ci ñoom waaw ah ñu ngi sant yàlla. fii mooy ma centre artisanal Ziguinchor. ci nekkin bi benn xoolal xoolal su xoolal fi nu mu mel depuis ñaataat depuis indépendance ba léegi. soo nee Soumbédioune Dakar da nga ne centre artisanal Ziguinchor mu nekkoon deuxième centre artisanal Sénégal mais xoolal nu mu mel. par rapport ak yeneen demal Mbour demal Thiès demal Saint-Louis demal Kolda barki Demba Ndiaye loolu lool la ñu am artisanal mais soo soo demee xoolal seen cantine ni ñu mel. Hmm? virtuose fii on se débrouille de pop moyen pour def suñu toit gëstu sa ginnaaw nga xool. xol nga am na yoo xam ne. jaruta wax wax wax yenn parce que soo waxee ñu ne xëy na da am li ngay ŋàññ mais am na ñu am yoo xam ne kenn war a woo kenn war la ko wax nga pour nga def ko yaa ko war a sa réew pour sagal sa bopp si yow sa sa bopp xam nga aussi bëri na amoon nañ xam jamono yi ci ginnaaw macha allah alhamdulilah rabbil alamin mais euh, dem na ba ay moment yi nga xam ne avec problème comme fii Casamance bi yàq lu bari ba jusqu'à neuf sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin jàmm ak dellu na mais jusqu'à présent ngi xeex Casamance ñu ngi koy xeex les opérateurs touristiques les hôteliers soo amee client bëgg ñëw jigéen nee na naa bul amul jàmm kooku amul na maa ci teg suma bët du benn du ñaar am na ñu bëri su baax bi soo leen laajee nee na kanam du mu ñëw Casamance parce que ah, conflit baa nga fa ba léegi mu ne ko su nekkoon kon tey ba tey naka la ñuy dundee am na ay clients xam ne ñëw ñaari kaa ñetti kaa duñ ci suuf ci 30 personnes ñaar ñoo jënd da ngay may la tu peux rester 15 jours sans un franc doo ko jaay. 15 jours un ko jaay. pour dire que Ziguinchor desee a nekk euh, nu mu tudd commune. de sport mais il faut dire que région de football lañu parce que doo dem ci benn club def na ci Sénégal te doo fa fekk doomu Ziguinchor culture la ci ñun euh, moo tax euh, de plus en plus ñuy gis def naa ni xamoon nañ ñoom euh, dem si yàlla Basirou Ndiaye ay ay champion Jules François Bocandé ñoom dem Baramata Ndiaye ak ñooñu tey ñoom Aliou Cissé donc dafa bokk ci ci suñu kiif c'est que ñu dem ci ay école de formation pour ñu mën a former former ñi c'est que à travers la rue nous savons mën nañu former suñuy ndaw ci ci tàggat yaram mais ci fair play ak si sportivité national A bi am nañu suñu ndaw muy Nicolas Jackson am nañu aussi suñu benn rak boo xam ne ni jógee na ci blessure c'est vrai que réussir lool mondial am mais lu ñu gis mu koy def ci clubam Krépin Diatta mi ngi jàpp ni mi ngi ñëwaat ci ci ci ci ci à son meilleur niveau. lu ñu daan namm feneen mu ngi fii. l'assistance créer ni ñi emploi créer ni ñi assister les jeunes assister les femmes assister les vieux ku nekk mu jàppale la ba nga bokk ci mu développement parce que auparavant ñu bëri dañ doon wax à travers moom tey politique moom poussé ba président bi gis muy gestu Ziguinchor muy gestu Casamance Doudou Ka moo tax ba loolu am tey la région de Ziguinchor la Casamance en général muy gis boppam ci lu lu nekk di dox dans les zones les plus reculées parce que tey ñun suñu côté Sindia Fogni ba ci biir boo xoolee accessibilité bi dafa métti duurukat dafay jënd ambulance yóbbul ñu ba foofu les villages les plus reculés boo xam ne rébellion bi mu ngi ñoon foofu guddi ngeen dugg si fi image boobu amatu dox ngeen léegi léegi fu ngeen jógee guddi image boobu amatu fi ko fi def ko de da bëgg a dénaturiser Casamance mais loolu amatu fi parce que l'espoir est permis il a poussé les gens à voir que ñun avec nous les Casamançais ñun doomu Casamance doomu Ziguinchor yi mën nañu taxaw ba développer développement Casamance am à travers ñun suñu gëm-gëm doo dem ne man Casamance laa dëkk nga dem nëbatu dakaar wala feneen nga toog foofu déedéet bu ngeen ñëwee depuis suba yéen a ngi dox ci biir fin fond Casamance ba fu ngeen toll nii. Mangok. retour sur le plateau ñu demoon euh, Ziguinchor Casa di Massa comme ni nga koy waxee. li ma wax léegi léegi à l'entame de mes propos waxtaanee Ziguinchor ci benn quinze minutes vingt minutes pap xam nga loolu mënta nekk. Mm-hmm. mais jël nañ ci point yoo xamante ni tey mën nañ ne moo téye Ziguinchor Pape lu ci mel ni euh, transport maritime bi bi def euh, Dakar Ziguinchor Pape bokk na ci socle boo xamante ni de développement la ku wax loolu tudd commerce noix de cajou bi anacarde bi li muy jógee Ziguinchor di ñëw dakaar tey jii ku ne mango wala màdd sa xel fu muy dem ci Ziguinchor mais dafa am benn filo boo xew mooy. ñu yàq àll bi te bu ñu yàq àll bi yooyu noonu dana dem ba dana dana kon ñi si war a jël matukaay bañ mën a préserver àllu bi ba yi nga xamante ni moo fay jógee di ñëw Dakar. Mhm. mën a ñoŋ ba ñu si mën a jot. sinon àll bi dañ ko yàq parce que ñu commencé di ko yàq di ko dagg ñun bu ñu jógee Ziguinchor di dem euh, Marsassoum rek àll bi presque euh, xaaju bu ñu génnee Ziguinchor ba bu ñuy dugg ba àll baa ngi lakk maa ngi koy wax si oto bi. Mhm. naa lii ne gars yi ñu ñu tàmm nañ ko àll bi lakk mais mii baaxul ne baaxul mais nooy def. munoo sapeur ñëw ñu ñëw fii nii àll bi di lakk di feu de brousse bi di percé bu baax a baax àll bi du tëdd di baaxul ci àll àll am na loo xamante ni baaxul ci baaxul ci àll parce que ku nekk Casamance da nga naan nga naan ah, àll bi àll bi falo fala yu bëri di jógee di ñëw Ziguinchor di ñëw dakaar boobu tamit jàpp nañ ko beneen mooy village artisanal alaaj maa ngi maa ngi la koy wax léegi léegi hmm. seen village artisanal depuis quatre-vingt depuis soixante ba léegi hmm. nam mel noonu la mel moderniser wuñ ko def nañ appel fu nekk gars yi faale leen mu ngi jël exemple ne demal Mbour demal Thiès demal feneen ak feneen waaye nee na il faut pour ma bant il faut ma ñëw ba Kaolack village artisanal jënd bant dem demaat Ziguinchor. ndax Casamance di fournir. te Casamance di fournir bant. Mhm. waaye mu ngi wax léegi léegi mu ne kon y' problème boobu nañ leen si jàppale ak yeneen rue yoo xamante ni mbedd yoo xamante ni tali bi dafa doy waar trop ba ñuy jawal seen jawal Jakarta ak taximan sax duñ fa sawar a dem surtout ma nawet. donc yooyu tamit bokk na si yi nga xamante ni tey mën nañ ne nañ leen si jàppale ñu utal leen saafara ndax li may wax tout le temps laay wax Pape du ma du ma jëkk ci di ko wax kenn ku nekk fa nga dëkk bëgg nga mu jëm kanam ba saa yoo xëyee di gis sa bopp ci dëkk bañ a génn dëkk bi. Ziguinchor li ko li ko li ko li ko ëmb dafa yaatu donc dañ leen jàppale si politique de développement ñi nga xamante ñoo ne si dëkk mën a gis seen bopp ci dëkk bi. Mm-hmm. loolu moo nekkoon li ñuy Ziguinchor Pape. Mm-hmm. di gërëm nag euh, ñoo xamante ni dañoo jàpp ci liggéey bi. ku ci mel ni Malick si ak Cheikh Bey mhm. mais mention spéciale pap ah, Papis Papis yi ka jàpp na si liggéey bi ak ñoom libaas mhm. ak ñëpp ñoo xamante ni macha allah taxaw nañ ñu ba affaire bi aw ci yoon mhm. mm, mataluñ lépp nag ndax waxtaane Ziguinchor comme ni ma waxee léegi ci benn dix kiiwul mais bu dee am na yenn secteur yu fàtte rek ñu ngi si jéegu lu baax a baax suñu kéemtalaay kattan lañ def ngir indil li nga xamante ni moom ngeen doon suivre léegi léegi Pape. Mhm. defe naa euh, di lañ jox di daje kon beneen yoon. si beneen gox gu fasantikoo doon c'est une très grande ville. donc. Euh, sax kii mhm. seen seen village artisanal. mais je connais je, je eh, neex. man je connais Sia je dugal foofu noonu. Zik Arana ak Sia. Mhm. non man dama daan fecc. ak perroquet ak perroquet ak perroquet. ça eh, mhm. reste pas loin de Kadianou wax lii. ñun Yaama Tooñ lañ dëk Escale. Escale affaire yooyu noonu. Neema Neema Kajoor. HLM HLM ah. xam na xam na quartier quartier bi surtout. rond point Aline Sitoé bi. waaw à chaque fois que je vais à Ziguinchor je vais bi nii fa laa defee entrée bi noonu. foofu mooy sama sama sama kii. Mm-hmm. Euh, Kajandumaay ak rond point kii. Mm-hmm. yow rond point yaa nga fa toog fëgg. projecteurs yi jàpp lay liggéeyee bon li muy wax rek mooy formation euh, ci ci ci village artisanaux yooyu ngay wax du Ziguinchor mm-hmm. kese dafa mm-hmm. bokk ci réforme yi dafa bokkoon ci li état waxoon Euh, ci PSE bi. Mm. ñu réformer waaw ana maire Ziguinchor bi lan moo tax gis nga fu ñu dem dañuy génnee maire bi maire bi nekk fa woon mun moo koon jot yàlla xam na ko. <laughs> Ousmane Sonko lan moo tax nga nekk maire Ziguinchor dëkk bu dem village bu dem maire bi dañ koy jël mu wax ci dëkk. Mm, mm. dem nañ Ziguinchor di la wër gisuñ la. Ousdel toog toog Ziguinchor euh. <laughs> Mhm. voilà li nga wax ci ci mhm. village artisanaux yi mhm. mooy dañ leen war a yeesalaat du Thiès du Kaolack du Kaffrine du Ziguinchor du mais moom jël na exemple si yooyu noonu mën nañ sax am na fi mu jigéen mais dañoo war a yeesal village yëpp mais Ziguinchor moo ci raw mais Ziguinchor moo ci raw parce que yeesal ko day permettre ñoo ñu mën a liggéey beneen bi aussi li nga wax tey si si li nga xam ne mooy lakk gi ñu koy wax alaaji daay bu jamono tollee fii du nekk Ziguinchor kese maa ngi nuyu waa Kaffrine de passage boo demee ay àllu Kaffrine bi day lakk te ñun ñoo koy lakk Mm. nit ñi ñoo fay dem. Mm. ah ñun ñoo koy lakk. àll yëpp day lakk ay chasseurs mais tux sànni après dem sa yoon wala nga wala nga romb nga tur si oto bi nii nga romb rek nga sànni kon dem sa yoon moo koy lakk. ñiy defar këriñ ci àll bi. <clears throat> ñoo koy lakk ko bàyyi borom mm-hmm. oto yi nga xam ne da ngay jógee dëkk ak dëkk. Mm. war a dawal jàpp na yow da nga war a tux rek sànni ci booy amul benn dëkk boo xam ne bu jamono ji tollee fii àll bi du lakk. te waa ji neram day lakk ay 20 jours àll day lakk. amul benn dëkk. nee na na xam lan moo koy fay bu demee bu jub benn dëkk waa dëkk bi ci lañ génn nag attaqué ko sotti ko ndox mu fay mais fekk jubul mbala ñu xoddi kook suuf maanaam dañuy bale suuf soos jël ay kii euh, salañ xam nga lu ñuy wax biodiversité mhm. mooy jaar nekk fa mu war a nekk mbëtt nekk fa mu war a nekk mhm. bar nekk fa mu war a mhm. nekk biche kéwél yooyu yëpp ay rabi àll la espèce dañuy yoo xam ne dañ leen a war a bàyyi ñu dund ci jàmm fa ñu dëkk léegi bu fekkee dañoo taal àll bi ñooñu dañuy daw dañuy daw dootuñ fa dëkk léegi bu ñu dawee dootuñu am fu ñu dëkk dëgg absolument c'est-à-dire yii si conséquences yi am daa bëri quoi. xoolal Pape Sidi bi mu relevé léegi la ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni. waxuma la conséquence mais bii kii la conséquence la. mu mm-hmm. daayira bi nekk ci waaw. Mm-hmm. dañ ko dañ cee war a taxaw. Mm-hmm. sapeur pompier. bu nekk Ziguinchor. wala bi nekk euh, euh, Bignona wala bi nekk. wala bi nekk Marsassoum moo gën a jege Marsassoum wala Kolda euh, kii nii Farfeñ. nanu ñëw di di di dimbale. Euh, takk-takk yooyu mais balaa boobu sax service des des des eaux et forêts ñoom ñooy njëkk. ñooy njëkk a intervenir ci jéem a intervenir borom 45 ah. milliards yi ñu jëndee ay pistolets. waaw mais ñoom dañoo war a njëkk ci sensibilisation c'est-à-dire. waaw dossier boobu fu mu toll. mais da ngay dem ban classé sans suite. da ngay dem affaire arme la donc buñ ci waxate ah président dañ ci wax na ka ay ay 45 milliards yooyu ñoo ko moom. ñoom ñoo war a njëkk ci ci sur le terrain sensibiliser ba pare. ah. loolu la wax de classé 108 la wax. maanaam armes yi ñu na 108 bu ci kenn waxati. Hmm. waaw affaire arme dafa dafa xaw a sensible bu eh fekkee ne lañ nekk la donc voilà. armes yi ñu jëndee xaalis bëri boobu yëpp léegi dootuñ ci wax. déedéet classé 108. allez wax xaaral ma noppi sax xanaa yow nga wax ci. xanaa man de amal ma ci wax sàll ngaari lam tooru bur ge de gis naa sa doom bërki dem mu may géwél yi ku nekk un million ma bëgg a inscrire ci géwélu affaire yi mu na jox leen ku nekk un million ah eh, jibi ñun ñaar ay géwélu affaire la. Ah, ak man bari jox leen un million wala ku nekk un million. non non danañ ku nekk un million. dugg si voilà. yee affaire bu yéeme Sénégal bu jot lundi mhm. nga may cinq nga may eh, <laughs> yi waaw géwél yi mérité nañ ko. yi nekk ni mu métti. xanaa loolu wax si. sonn nañ attends les dañ leen a génn seen fiñ fiñ dëkk. les benn Sénégal mu dégg bu nga xam ne benn sam moo ko moo ko fat ndax kooku dafa dafa yàgg moom moo ko fat am na am na xam ne gis na la xam ne ñu ngi si àll bi ñu ngi si mbedd mi di fanaan waa ji nee na ana ambassade bu ne wala doo leen jot kenn waxul dara ambassade bi daal tey dégg naa ko moom ak maman Aïssata Tall Sall <coughs> non def nañ communiqué mais communiqué ça sert à rien Pape Sidi non il faut aller envers même Cheikh Tidiane Gadio qui au président tunisien mm-hmm. parce que dans la diplomatie il faut savoir que la diplomatie c'est c'est deux nations il des intérêts entre les deux pays ñii dañu soxlaal kii kii soxlaal ki donc li nekk enjeu dafa bëri mais bu say doom menacé euh, le président et le corps diplomatique se doit de régler ça en en douce ba mu leer la ni mais xam nga nit ku ñuul kuy dox doo gis mu takk ping si drapeau Sénégal nga ni ah non kii duma ko laal mm-hmm. parce que waa Tunisie am na ci ñoo xam ne ñoom dañoo contre mbir yi. Mhm. ba di ko kaas. Mhm. mais am na ñoo xam ne dañoo ànd ak président bi ba ne dañu def marche pour wax ne li mu wax ñoom d'accord nañ ci. Mhm. problème yi foofu la nekk mais y a des xalaat loolu. partout en Afrique. donc voilà ah, parce que africain donc il il faut aller envers ces Sénégalais maam l'homme noir wax ñoom na génn quoi. te y a des y a des Tunisiens partout en Afrique. Ah, en tout cas li moom baaxul ci Afrique rek mooy li Pape Sy di wax diplomatie bi day da koy yàq xam nga keroog bi may expliquer problème bi mhm. maa ngi wax naan samay kaddu jubluwuma ci <clears throat> nit jóg fippu mbaamu mu fayu mhm. dafa am ñoo xam ne dañ lay déglu mhm. di la dégloo ñoom seen fauteuil bi ñu toog nooy bi mu nooy am na nooy waxee rek fauteuil bi daanu daan absolument léegi ñooñu au lieu que ñu xool intérêt sénégalais yëpp dans la globalité duñ ko xool dañuy xool intérêt seen toogaay léegi ñooñu ñoo lay collé motif mhm. ne yow yaa incité à la violence incitation à la haine nanani nanana moo tax moi quand je donne des informations je dis moi je dis à personne de faire quoi que ce soit mhm. gars yi naan ma non Pape Sidi nangam nangam j'ai di non man daal lees mën a wax bëriwul. alaaji kaa ñu dem ci jeunesse bi ndax loolu moom xëy na doo am problème ak kenn. doo am problème <laughs> yooyu am na solo lool alaaji mais nag réew mi ñu bokk moom ñun ñëpp dañ ci am wàll. waxtaanee wala faaw ñu wax ci nag. Mm-hmm. ah wax nag kii wax nag. nga xam ne comme li ñu nekk nii yenn saa yi nga juum mais nit ki lay déglu moo war a xam ne kii ni mu waxee xaj na dafa juum ma mm-hmm. comprendre mm-hmm. mais nag bon Sénégal dafa mel dafa am beneen sénégalais boo xam ne maanaam xamuñu li baax donc li baax boo koy wax boo ci juumee sax la nga juum la ñuy jël rek mm-hmm. ne bécc ci pénc bi waaw ñun nag dañoo nekk ci li ñuy wax li baax luñ ci def lu ne dañ cee juum rek mais du suñu coobare yi euh, ñu ngi lay jaajëfal mhm. affaire bi rafet na ni ñu mhm. mooy suñ njaatige mhm. donc ñu ngi koy jaajëfal bu baax baax alaaji rafet mi léegi boo xam ne borom njaari mag ma ne ko borom njaari yee mag Kaolack hmm? Ansoumana président 2024 bu soobee yàlla ma nekk ministre de la jeunesse yow dinaa la jël yàlla boo yàlla boo ko nekk yàlla bu nekk président ndax li li ma yéene après moo tax ma ne yàlla bu nekk président doo doo nekk du ma la def courrier déedéet courtier Pablo alaaji lu ma président nga dégg waaw kon def na kon donc yàlla boo ko nekk. <laughs> merci beaucoup Nasoumana président merci beaucoup président. merci beaucoup Momar Alaaji mën nañ jublu suñu invité bi comme ni nga ko waxee xanaa. bisimilah. waaw di nuyuwaat sénégal yi ñuy seetaan bu baax a baax a baax a baax di nuyu suñu frère Pape Ibrahima Ndiaye comme ni nga ko waxee Alaaji